bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina walana muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi din rabbil alamin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokki julli ni mbokki taalibe yi maa ngi leen di ziar bu baax di leen balu àq tey ma ñëw fas yéene waxtaan yéen rek ci ñaari euh, ñaari point maanaam ñaari tomb bi ci jiitu di maanaam euh, mairie Touba bi euh, ci la ñuy fas yéene wax tuuti bi ci topp di maanaam taalibe sëriñ Touba yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi di ay taalibe ba noppi ñu gis ne ñenn ñi dañuy faral di yëkkati ay kàddu yu xaw a ñagas di ko teg ci sëti Serigne Touba yi te yaakaar ne loolu itam euh, euh, lu ñu war a taxaw def ci ab seetlu la waxtaan ci ñu labyrinthe yi bu ko defee ku ci nekk xamaat fa nga fa nga war féete waaw bi jiitu ci ma ñëw kon ñu tàmbali ci mairie bi man dama xaw a am ab jaaxle ndax léeg sax daanaka mën nañu toog di laaj naan ndax dëkk bi am na maire bu mairie lay wax ndax ko gis ni dëkk bi mel mbalit mi foo jéggi na dayoo Euh, ñàkkum courant mi ndox yu taay yi nga xam ne ni foo jaar moo fa fees del mm, te gisuma daal boobaak léegi lu ñu ciy jéem lu ñu ci def te ndox yu taay yi bu leen fàttali bu fu mu am rek daanaka ay yoo day daal di commencé am te yoo nañu xam ne euh, mboolem rabi àll yi suñu borom bind mooy li ci ëpp ki ci ëpp lu muy rey lu muy fàtt ay ay bakkan mooy yoo yooyu ndax wax nañu ne danañuy at mu ne dana rey lu toll ci sept cent vingt cinq mille ci ay eh, eh, personnes ci ay nit kon loolu lu jéggi la jéggi na dayoo kon lu mat a xeex la kon ñoom yaakaar naa ne bu ñu defoon li war a def dëgg-dëgg eh, yooyu yëpp war na fee mën a war nañ cee taxaw ba nit ñi mën a am wérgu yaram bi gi nga xam ne moo moo moom moom la ñu war a am maanaam fi ma bëgg a wax rek mooy dama gis ne ab maire yi lii tax muy dox benn mooy xam-xam dafay am dañuy boole xam-xam ak li ñuy wax tubaab yi compétence ak ak ak alal bu ko euh daal di commencer liguey liguey ba yakana ku bolé yi ci lu mëna a euh liguey ba bo yor rek bo bëgg dox rek dana man dana yomb te ma gis ne yépp ben manké wu fi ci dëkk bi mën nañu tambulé rek ci pour wax leen ne leen xaalis moom fi euh, ndax euh, bo xolé bu ma joxé euh exemple ci ci transport rek li nga xamné mom mom lañuy duggal ci dëkk bi loolu rek bari na lu mën a lu mën a euh, saafara ci dëkk bi lu ci demee ne euh, transport lu mu néew néew dana dugal ci ci dëkk bi moom lu mu néew néew da at mu ne dana ci dugal dana fi dugal milliard ndax boo xoolee bu fekkee tata bu ne da nga fay 6000 auto vidange yi di fay euh, vingt 25000 par mois camion sable yi di fay 1000 francs par jour muy 30000 nga indi minicar yi di fay ay 4500. taxi yi di fay 3000 sareeti fas yi di fay 3000 sareeti mbaam yi di fay ay 1500 nga nga jël ah, mbàkke tubaay yi di fay 9000 yii ma yii ma wax nii bu ci nekk boo jëlee 100 rek boo ko dajalee daanaka ah, da nga gis ne weer wi danañ dugal lu jege 100 euh, millions daanaka ndax 82 millions dana ko mat ci ci ci ci ci ci weer wi kon boo ko defee boo ko jëlee boo ci jëlee 100 rek loolu la ma gis ne itam euh, lu aju ci même sareet yooyu rek. li may wax léegi lii mu sareet yi nga xam waxoon nañ ko ci 2014 lii mu sareet yooyu toll ci mille 12000 12000 yooyu boo ko xoolee at mu ne danañ dugal genn wàllu milliard ci dëkk bi kon ba léegi damay lépp di firndeel ne xaalis moom kon ñàkku fi bu ñu war a mën a liggéeyee dëkk bi bu loolu jàllee ñu ñëw ci auto publicité yi nga xam ne dañ fiy ñëw di dugg si dëkk bi oto yooyu bu ci nekk bu fi dugg bu ne di nga fay ay ay 125000 jëm kaw ci liñ ñu wax bu dee panneau yi gis ngeen ko comme yi fi nekk nga xam ne danger la sax ci dëkk bi ko mooy yu mag yooyu ñu fi defoon nga xam ne bu ngelaw lu am doole ñëwee mën naa bu daanoo ci kër sax mën na ko yàq waxuma la ak nit yooyu yëpp euh, te boobu it marché ba ma toll na lu mat 200 millions ñoo ñëpp di dugal xaalis ci dëkk bi nga jël euh, lu demee ni kër yu yëglekaay euh, communique yi nga xam ne ci la ñuy kër yi téléphone yeeg yu mel noonu dégg naa benn bis ci benn promoteur wu lit mu mu ne benn këru euh, bu ci këri jokko yooyu danañ koy jox moom euh, ak mu ne lu toll ci 700 million ngir 700 millions yooyu pour pour visibilité ci ci ci saison de lutte bi nga xam ne moom la daan organiser bu fekkee ne visibilité yaakaar naa waruñ warut a warut a mën a am lu euh, Touba yaakaar naa ne màggalu Touba ku ku bëgg publicité bu tegu ci bu bu bu pour lu nit ñi gis rek yaakaar naa ne amul ci Sénégal xew-xew bu ëpp màggalu Touba. kon yaakaar naa ne ñoom it lañ fi dugal kon war nañu ko wax te du benn kër rek lu man ñetti kër a ngi ci buñ ci jógee banque yi dañuy fay euh, di dugal xaalis ci dëkk bi ak yeneen ak entreprise yi fi nekk yëpp yooyu yëpp bu ci nekk dafiy dugal même fi ne boo xoolee euh, boutique yi ci koñ yi boo ci jëlee lu toll ci euh, boo ci jëlee lu mat cent mille cent mille ci boutique yi koñ yi ñu ngi fay patente li gën a néew ci li ñu wax ne ñoom moom la ñuy fay ngi toll ci dix mille francs te boo ci jëlee marchand bi loolu rek déjà un milliard lay doon ci xaalis lii lépp nga xam ne bu ma defee xayma ci samay xalaat ci ni ma gisee ni xaalis a ngi fi lu mu néew néew dëkk bi lu toll ci mu mën na ko yées mën na ko ëpp waaye daal xam naa ne lu man ñaar fukki milliards moom mën nañ ne at mu ne ci lu jëm ci ay recettes ay yu mel noonu dana fi dugg ndax magasin yi ci mbedd yi am na ci xam ne ay cent vingt cinq mille jëm deux cent mille lañ koy fay ci patente ci ci ci ci dëkk bi di loolu lépp di firndeel ne xaalis a ngi fi. beneen bi mooy dëkk bi sax boo xoolee courant amu fi daanaka ndax li may li koy firndeel ne dëkk bi daanaka fenn foofu jaar fépp la nëb kër Serigne Touba gi nga xam ne mooy kër gu mag moom fii may waxe yéen boo demee juróomi la juróomi làmp ñoo fa am ci yëkko wër juróoma cay tàkk benn moo nekk ci soow bi ñett yi ñu ngi ci ñeent yi ñu ngi ci ñu ngi ci penku bi loolu loolu lépp di wane ne nañu war a taxawee ci dëkk bi kon ba léegi defuñu ko bi ci topp mooy euh, comme dëkk bi dañ euh, Euh, budget bi nga xam ne 2017 bi ñu ko wootee wax nañ ci ne am na ci loo xam ne dañ ko jagleel sport mu toll ci ay daanaka plus de 70 millions te ñi ngi gis ne dëkk bi dañ fi aaye sport amu fi bu ñuy bu ñu bu officiel bu ñuy fii def amu fi waaye teewul am na ñuy jógee fii am na ay équipe yu nawetaan yu fi ne ñoom ñooñu équipe yooyu dañuy dem di football ji ca Mbàkke bu ñu demee stade Mbàkke la ñuy utiliser euh, courant Mbàkke la ñuy utiliser may laaj meeru dëkk boobu ndax kon ndegam lii budget bu ñu woote woon la ba noppi ndax xaalis boobu moom mi ngi cay jot ak bu ca jotee fan la ko def ci Mbàkke moom itam dama ko koy laaj parce que Mbàkke boo ne Mbàkke ne Touba ta comme léegi bu njëkk mën nga ne commune la waaye léegi comme maire la comme maire yi da ngay gis ne kon euh, comme maire la ne Mbàkke loolu kon war nañu ndegam xaalis buñ ñu wootee la ba pare te utiliser wuñ ko fii te suñuy nit ñoo koy utiliser foofu kon loolu foofu la war dem lii yëpp muy ay ay mbir yu ñu war a xam lu demee nekk nit ñi nga xam ne léeg nit def. Euh, ñun Touba amul tribunal mais ku fi def dara Mbàkke lañ la àttee kon ñoom ndax loola ñoom it am na lu ñu war warloog ñoom ci loolu ay laaj la yoo xam ne dama koy laaj pour bëgg xam ba xam ndax ndax it du ay caaxaan wàllu administration la euh, xa euh, dafa war a tegu ci ci yoon wi nga xam ne mi moom lañ xam jubluwuma ci pour yàq wala dénoncer kenn mais day loo xam ne ñu ñëpp ko bokk tey dama yaakaar ne sëriñ kilifa yi leen fa teg xëy na xamewuñu ko ñoom comme ñun nii ñu ko xamee nii ma moo tax di ko dénoncé daf ciy baax ngir ñoom bu ñu ko xamee danañ xam ne kat ndekk ñii ñu fa teg di leen liggéeyloo xëy na liggéey ba sooxee na ci côté bi bii ak bii ñoom ñu mën a wut jël ay ay ay ay mesures ci loolu bu ko defee mën a saafara loolu ndax nag nit ñi soxla nañ ko teyit euh, dëkk bi daal war naa weesu fii mu tolloo loolu daal laa ne woon moom euh, lu mu gàtt gàtt dinaa ko génne ñu ci ci lu jëm ci wàllu maire bi Euh, dal ni euh, même boo demee ci santiane yeeg ñi fi dëkk am na ci ñoo xam ne ba léegi amuñu courant ñenn ñi amuñu ndox amuñu yoon te yaakaar naa lii génne ci dëkk buñ ko dugalaatoon ci dëkk bi yooyu yëpp dana mën di saafara bu dee at mu jot ñi def ci dara waaye dara dara amul leen leen leen loo xam ne ni da ko mën a teg sa bët wax ne gis ne ñoom lii ñoo ko def ci dëkk bi te yi ma yi ma lim ba léegi marché yi bokku ci ndax marché boo fi dem woo ne ma mat na am nañ lu mat 1000 places te marché yi ëpp nañ fukk ak euh, quartier boo dem daanaka am na marché mais yiñ ci gën a xam te wax nañ ne foofa patente yi ñoom ñi ngi fay lu toll ci ay ay mille daanaka lañ leen wax 60 000 jëm kaw kon loolu pour wax leen ne xaalis kon mi ngi fi fu mel ne marché Ocass marché Darou Khoudoss Darou Marnaan marché Garba marché Madiana marché Janatu Sam ay marché bu bees ay marché Darou Minam marché. bu tas xaw ma marché maam jaara yooyu yëpp di ay fas ay marché ak yeneen ak yeneen yu fi ne kon yëpp di ñu dugal xaalis ci dëkk bi xaalis boobu nag dañ ko war kon delloowaat ci dëkk bi euh, baneen bi it mooy may ñan ne xëy na fas li yëpp li ko waral mooy li askan wi ñàkk tànn ka fay toogal rek moo ko waral waaye waroon nañoo changé ba critères yi nit ñuy tànnee au moins ñu xool ñoo xam ne dañuy xam ne ñii ñu ne képp koo xam ne war ngaa bokk ci maire bi bokk na nekk ku bokk ci Serigne Touba wala koo xam ne ni sa maam euh, àndoon nag Serigne Touba ci ci ci ci ñi ci Cheikh si wala kenn ku ci am xam-xam am programme nga teg ñu xool boo doyee nit ñi ñu teg la fa boo leen doyut ñu ñu ñu dindi la parce que yaakaar naa ne loolu buñ ko doon doxee yu bare bari dina euh, dina soppiku ci dëkk bi waaw foofu man mën naa fee yem foofu bi ci des mooy sama mbokki taalibe yi nga xam ne dañoo bokk ci dëkk bi. surtout euh, taalibe yi en général rawat na ñu nekk ci dëkk bi dañu ci bari mm, ñuy doxe noo xam ne nii dëppwut ak ak ak ak ak li ma yaakaar ne ak taalibe noonu la war a doxe mooy dëkk ci dëkk euh, jàmbur ndax Serigne Touba de dañoo ñëw jébbalu ci moom jé wowul kenn ne la kaay jébbalu si waaye ku nekk yaa xool ba mu doy la nga ñëw ba nga ñëwee bañ ñëwee ji na leen teraanga teral na leen yërëm na leen ndax li tax ma ne ji na leen euh, teraanga mooy benn taali ku ci nekk ba nga ñëwee dagg na ay parcelles jox la nga dëkkee fayoo ca dara muy jël ndoxam jox la ngay ngay jëfandikoo am ndox ndoxum dëkk bi te doo fay dërëm te loolu yaakaar naa boo waroon àdduna bi néewaa na foofu yi dem foo xam ne doo ndox loolu loolu lépp ci ci teraanga la joo xam ne Sëriñ defal na ko defal nañu ko ñun taalibe yi ba tax na kon am na ne nu ñu war a taxawee ndax lu nekk li may wax boo ko xoolee ci sa bopp ñëw ci sama kër ma ubbil la sama bopp yaatal la teg euh, teral la ba noppi nga ëlbatiku di wax ci sama njaboot lu ñaaw jàpp ne loola dana ma war a mën a neex euh, loolu mun a nekk ndax kon euh, nañu des di nekk ay taalibe même bu fekkee ne kilifa yi dañuy waxante loo xam ne nii teguwul ci yoon ñun suñu yoon mën na caa ñoom ñoom bu dee ñoom neen la ñoo xam waaye ñun ñii di ay taalibe ñuy des di nekk ay taalibe te sëti Sëriñ Tuubaa yi nag ñu jox leen ab cër jox leen gëdd te waaye di watandiku fu ñu toll di jéem wuñ ñi ay ayib loo xam ne nii day niroog joxe sa joxe bopp ba noppi rocci làmmiñ ndax loolu li tax ma koy wax mooy sikk moom bu euh, ayib ku nekk boo xoolee sa bopp rek doy na rek ni ni mu amee ci sëriñ si la kon la amee ci taalibe yi rek te it sunu maanaam amul lenn loo xam ne nii ab sëriñ war waru koo def ab taalibe war koo def amul du lenn du loo xam ne nii maanaam war na ab sëriñ war na koo def te taalibe waru koo def sëñ bi lim ñu digal leen la ak jub jàmm yàlla ak liggéey ñun ñëpp muy muy ñun di di di muy sëriñ si di taalibe yi beneen bi mooy ba ñëwee ci teraanga jooju may wax ne sëñ Tuubaa defal leen ko ub ba mu leen ubbilee dëkkam dalal leen di leen euh, di leen jox ndoxam mu ngeen koy jëfandikoo te du ngeen ci fay ngeen dem ci jumaa yi ñu fa julli ji ñu climatiser ko di di leen ko taalal mu leen upp courant ba sëñ ba di ko fay loolu lépp ci ci teraangay sëñ bi la yemu ci mu daggal leen ay barab yoo xam ne war ngeen fa mën a dem di fa yaxanal lu jëm ci seen wàllu euh, lu ngeen mën a yóbbu ci kër yi waaye loolu ci biir itam am na ci ay sikk yoo xam ne nii taalibe yi ñoo ngi ko fay def benn ndax ku ne xam na ko xam marché xam ne marché Touba danga fa gis fu ñuy wax ma foo xam ne nii dañ ko ber mu tudd marché forot te forot moom ku mooy contrefaçon ko ku nekk xam na ne lu ñuy aaye te pourtant ay talibé ñoo fa né gisuma sëriñ bu fa né di fa jaay beneen bi moy ñen yenn talibé ñen yéen ñi ngi fiy jaay ay fétal ta fétal yi ya ñi jaay euh, xamuñ ndax dañ ca boom nit wala dét amuti kayit té lool tém sik la benn beneen bi moy ñen ñi ñew ci trottoir bi nga xamné fi la nit ñi wara euh, jaar ñu occupé ko tek fa seen tek fa seen c'est exposé fa marchandise di fa jaay ba nit ñi dañu obligé di jaar ci tali bi ñi di fa ubbi seen atelier ci kaw tali ci kaw ci kaw euh, trottoir bi euh, ñenn ñi tam xam nga ku ne xam na ne pharmacie pharmacie kum neex nga ubbi ko mel ne koy ubbi boutique te loola moo lépp damay ñëw ci yërmande ji nga xam ne moom moom laay wax ni moom sëñ bi defal nañu ko kon ñu am na nuñ ko war a delloo ñu kël pharmacie boo xoolee Touba fii fii ñu toll jamono yi yaakaar naa ñeent pharmacien yi ñoo fi am yu yu valable yu ñu xam yu jàng ba am diplôme yi ndax lu mu néew néew da nga dem ba université defaat fa lu jege fukki at yu yu door a mën a génn di ubbi pharmacie te fi ne ku neex nga ubbi ko fii ñeneen beneen bi ñu fiy jaay ay garab yoo xam ne nii euh, dara euh, garab yi ñuy jaay ci ci ci mbedd mi garab yu périmé ñu ngi ko fiy jaay te loolu lépp di loo xam ne nii lu ñu lu ñuy aaye la ñi yomuñ ci ñu ngi fiy jaay ñu ngi fiy dawal ay ay oto riim te loolu lépp yaa ngi ko sañ dawal fii te pourtant sañoo ko dawal dakaar gi wala Jurbel gi rek kon loolu lépp day wane te loolu lépp sëñ bi xam na ko gouvernement bi xam ko autorité yi xam ko waaye nag bu fekkee ne bàyyi nañ leen ngeen continuer di def loola kon loolu yërmande ju sëñ bi am ci yéen la ndax bu ne woon tey tey na fi jóg yaakaar naa ne du doyut sax am xëy euh, gouvernement bi ndax ba fi sëñ Abdou Lahad bëggee jëleem tux ba ko fi aayee ci saa si dafa dafee daal di jóge armée yi biñ nee nañ ko tëj dañ ko daal di tëj kon day wane ni dëkk bi moom dëkkub sëñ Touba la Mbàkke lay sant ba faw sëñ Touba ko moom ku fi nekk nag danga nga fiy nekk ni ni neex sëñ bi waaye nag la cay la cay yiitu mooy di wormaal njabootu sëriñ Touba gi ndax ki ndax damay dégg sax ñuy wax ba na sëñ bi nee na Serigne Touba dana wax ne bu ëllëgee bu ngeen ma gisatut jàpp leen ci sama jumaa ji ak sama jaw doom yi ak ak ak xasida man loolu bu fekkee Serigne Touba ko du lum bind wala man gisaguma mbind ma da gëm naa ne nag mën nañ ne moo ko wax waaye loolu itam fi ne nii ba léegi day loo xam ne eggaguñ ca ndax fi mu nekk nii. Euh, saa suñu li fekk ñi ngi gis koo xam ne nii deret Serigne Touba la di mën a yilif yoonu murid bi di moom mën a moom Touba li fekk ñi ngi gis kooko jàpp euh, doomi Serigne Touba yi jógaguñ fi ba ñuy jàpp ci ay li ci bari dañu ci war a yeewu ndax ñi koy am na ci ñuy indi xeet yooyu ñu koy gën a euh, médiatiser pour di ko wax ngir muy gën a dugg ci bopp nit ñi mooy ñi nga xam ne wóor na leen ne maanaam xëy na ñenn ñi ànduñu woon ak euh, bokkuñ ci sëriñ bi ñenn ñi ànduñu woon ak euh, seen i maam ànduñu woon ak sëriñ bi nga xam ne ñoo ñoo nit lañ ñoo xam ne ñu fël bees rek lañ jekk-jekk mooy ñi ngay gis ñuy woote léegi ci lu ne di dugal ci yoon wi ci bokkul ñooñu bu yoon wu bu tasoon ñoom amuñ ci benn intérêt bu amuñ ci lenn lu kon ñun ñi ko moom nga xam ne ñun la ko fi sëñ bi bàyyil muy sunu ndono dañ ko war a fonk te yeewu buñ nangu ñooñ ñu mel noonu di leen jël di leen def ay arme di leen xeexe sëriñ bi wala di di leen xeexe yoon wi dañ ko war a bañ beneen bi mooy ñi ci bari dañuy nekk fii di jàng jàng xasaayit yi waaw nañ jàpp ci xasaayit def naa ko saabu sëriñ yooyu yëpp baax na euh, xasaayit baax na lool ku nekk da ko war a jàng waaye nag na ngeen xam ne itam kenn a jàng xasaayit surtout sëriñ Tuubaa yi kenn daqu leen ko jàng ñeen da ngeen koy yëkkati xëy na ñoom ñu koy ñu koy durusu rek di ko yàllu waaye nag ni ngeen koy jàngee ko raw lañ koy jàngee ndax ñun bañ ko ci daara yi lañ koy commencé di ko jàng di ko mokkal ba ba ñu ba ba nekk fii dafa am wax yoo xam ne waxi ay ay ay ay ay ay caaxaan la rek jërut ni nit ñi eh, eh, ñi koy wax mooy comme li ma wax léegi wax xam nga eh, dafa am loo xam ne ni politique tubaab la bu la bëggee jë fexeel li muy njëkk a def mooy da def li ñuy wax euh, mauvaise presse maanaam daf lay jël yàq sa der di ko yàq ndànk-ndànk nit ñi di ko di ko miin ci yow ba nga xam di dem di di miin di yàq di la tuumaal ba ba bu demee ba mu yàgg nag mu xëy benn bis rek ñëw attaqué la. bu la attaqué nag loola bu boobaa bu ko defee nit ñi kat dootuñ dootuñ jël benn kii dañu ah mën naa nekk kat ndax moo defoon lii wala moo wax daan nañu wax ne moom nii la mel noonu la ñuy doxee moo tax yu ci bari faaw ñu muus nekkaat ay taalibe gëm sëñ bi tënku ci njàngum sëriñ bi di dox ci li ñu sëriñ bi digal ñu def lu dul lii nag nañu nax suñu bopp tardeel suñu bopp rek day yoo xam ne mënuma ko woon a ñàkk a euh, euh, génne wax ko wax ko. waaye nag euh, ku ci gis sa bopp nga nga nga nga xam ne ñun waxuñu pour yàq wala yar kenn wala dara dañoo waxee ni ni ñuy yëgee rek ni la ñuy waxee maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu